waa kay jërë ngeen jëf mbokk yi bi ñu nekkee fii nga xamante ne mooy bisu xasida gànjaay comme noonu ñu leen ko waxee wan xam ngeen ne ci bëccëg ba tey ñu ngi fi waaye ni koy waxee rek euh, fu góor nekk rek jigéen nga fa ndax naka jekk lislaam fu góor gu baax ma sa taxaw rek jigéen gu baax ma nga fa bi ñu ñëwee fii fekk nañ fa suñuy waajur ñu doon waajur ci ñi nga xam ne ñooy kuréelu waa Touba Gandiaye kuréelu Jaalibatul Maraaxib bi ñu ñëwee fekk nañ ko fi mu joxe ay nuyoom waaye joxe ay cantam ak ngërëmam ci li nga xamante ne mooy bisu xasida bu tedd bi ñaanal suñu borom mu defal la tawfiix baax baax sama yaay kon lu mel nii bu ko doom dee def ban mbégte ngeen ci ak gan ñaan ngay nga xam ne ñoo koy taxaw alhamdulilah sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu di sant maam borom Touba ak maam Cheikh Rafal di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke suñu wasila yal na ko fi yàlla yàggal te xale yi nag mënuñ lu dul di leen sant di leen delloo njukkal yal na leen yàlla taxawu te leen te aar leen yal nañ yàgg di ko teewe yàgg di ko def télé beeg borom télé bi yal na yàlla yokk ay leer yi mayam yokk ko léppam ci barki yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam xale yi daal ñu ngi leen di ñaanal fan wu gudd wa ànd ak wër ndax ay ndaw yoo xam ne yàlla xiirut leen lu dul ci bëgg sëñ bi xiirut leen lu dul ci bëgg yoonu sëriñ bi yooyu doom amu leen seen bay xanaa di leen ñaanal yàlla taxawu leen aar leen sàmm leen sàmm mboole mi jullit te yéen ñu ko yal nañ fi yàgg di ko def fii ci Touba Gandiaye sant yàlla nag bu baax alhamdulilahi rabbil alamin lu ñu sant daal doyul ndax ñu dañ amul ku dul sëñ tubaa sëñ tubaa rek lañ am mooy suñu tànk mooy suñuy bët mooy suñu xol xol bi daal bu dee benn jox nañ ko sëñ bi ndokk nag bi ñu suñuy njaboot ñëwee aw ñu ci yoonu sëriñ bi kon alhamdulilahi rabbil alamin mënuñ loolu lu dul jé jébbal suñu bopp rek yàlla ay yonent bi ba mu jeex tàkk ak sëriñ bi tey ñaanal njaboot gi tabaarikàllaa macha allah yal na leen yàlla taxawu te gën leen a taxawu te yokk leen a xiir ci bëgg sëñ bi ndax lépp lu waaye am lu du Serigne Touba rek amoon dara sëñ bi rek lañ am sëñ bi rek lañ am sëñ bi rek lañ am itte amuñu ittey kenn lu Serigne Touba yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla taxaw yal na leen yàlla aar loolu daal laa amoon lu ma ciy wax di leen sant di leen ñaanal tànk yi ngeen ñëwee yi ngeen delloo yal ko yàlla defi yiwu neen ak wërug neen ak suturaas neen ak wërsëg bu neen yàlla mën na ko sama borom mën na ko yal nañu ko yàlla defal rek laa amoon lu ma ciy wax salaam nañ ko yàgg teewe yàgg koo jëfe yàgg koo fekkete saa yu ñëwee rek gën a neex ko ca des waaw alhamdulilah rabbil alamin